ko ak leeg moom ne leen wóor ni yaa ko doon Mbàkke du jooj ni dama waatoon bu jéggal la dina la ko ne dama tooñe Cheikh Ahmadou Bamba du doon

boo tooñee maa ngi ñaan ku jóg màggal sëñ Bamba yàlla sëriñ bi fa saajo ku yaakaar sëñ Bamba jógal taxaw ca kaw màggal ko rak bo ok fa gàgg ndaw ci aw melo ku ko màggal yàlla sëriñ Saliou defar say mbir wala ay dana am di jox ña ila dugg yi ne gëne sippi sippi leen jëloo laaj rey rey rey bu baax la na ñàkk la ko waaye jëloo laaj rey rey rey bu baax la na ñàkk la ko waaye jëloo laaj rey rey rey bu baax la na ñàkk la ko la lu rëy rëy ay Bamba la la jox la ko gañe melaw Bamba waxaar baax ya jaaxal na gaay biir biir waay li lee tax wala fi ganaar ya waay baax ya yëpp buur yi ni leen wóor ne bàmbaay waate ku mu sopp soppi ko soppi ko ne leen wóor ne bàmbaay waate ku mu sopp soppi ko soppi ko ci njël saa yi ras gaa yi bi daa war ci naaru góor ñu diligéey saxaar gaa ngay dem Tuuba te daw til ko teggi ko Kajoor ak Bawol Siin Saalum ak te ñoo yey ni bamba aaye bur yàlla moo ko def leen ko sutu bul ba dee dem na rijaanam ya maat ko nono bamba sutu bul ba dee dem na rijaanam ya maat ko ku noonu Bamba sutu ba dee dem na rijaanam yaa maatu ko waaye faral nag bi yow Muusa gire gumba ràññeewul kañu borom xol bu gumba raw borom gën yu feetagul ëf la wa maat ko këgër tumba yorti ko bay julil nak ci yoneen gen ji kuy doomi waajuma te moo tax borooma am bindu kuy doomi waadama لتو الأهل والعذاب يا رب يا وخنكو طول والعذاب يا رب يا وخنكم طول والعذاب يا رب يا وخنكم جنت والآل والعذاب يار يا وخنكو جنت والآل والعذاب يار يا وخنكو جنت والآل والعذاب يار يا وخنكو من المال والعتاب يا رب يا وخنكو يا يا lépp lu ngeen def comme jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc